Diatara ak ministre bi ñu mu wàllum euh, élevage moom ma nag Mariétou Dieng génn na ci douane benn bokk yaakaar jamono ji mu nekk député non inscrite mu mel ni am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. allo soxna si na def. ñu ngi fi alhamdulilah sëñ bi tur ba ak fooy wootee. nag may wootee fu mu Angleterre. d'accord ani waa Angleterre. ma ngi si jaama rek mi si jaama su ma olof bi setul noonu wante mu try focus. d'accord benn problème. Ah, dama bugg a convince tuuti rek like no problem man dama war ci Macky Sall Macky Sall billahi wallahi taji waaye mm-hmm. man musuma gis fuñ fuñ téye journaliste di ko di ko tëj kaso mm-hmm. jigéen bu mu biir nii jigéen boo xam ne wérut mm-hmm. ah si par condition ñu dem di ko tëj kaso est-ce que lii rafet na ñu waxante dëgg rek seen Sénégal bi ji nga ji nga ñii ñu ngi ko nekk di def nii billahi wallahi tallahi ah ñii toppun dara si Macky Sall ngir lan pour gaay am xaalis te am dara rek wante gaay lii du leen jikk mm-hmm. Macky Sall jeexal na ji nga nguur bi ees bi bés bu ñëwee nii dama bugg def justice bu mag a mag nit yoo xam ne ñoo doon téye gaay yi journaliste ak ñeneen ñeneen jàppa doomi Adama di leen di leen di leen dóor di leen soonal ñun ñëpp dañ leen war a téye ñu atte leen atte dafa war a am de keroog maa ngi woote fii ma ne justice bu mag dafa war a am Macky Sall Macky Sall moom is a evil angale ñoo wane is a evil hmm. is absolutely disgusting it's not common it's after order look at woman it's a bad condition this woman is, is she pregnant for, for for five months for six months five months or six months something like that Huh? What, what, kind of what kind of president is like that? This is absolutely wrong. I never see that my life. I don't know why Macky doing this. Mm why doesn't have uh, advice. People doesn't advise him. Huh? Mm-hmm. need to advise. Who is advice. him? He give absolutely wrong advice. He keep arresting people. People not doing nothing. If you talk small thing in the media, your Facebook, your Facebook, and next minute they come and you. Huh? Macky Sall si soobee yàlla billahi wallahi te yàlla dina ko àtte de dina am bugel bu mag a mag si si baameelam di nga xaalis mu sàcce ni ama Faraba Ngom bi tam Faraba tam lu ko def nii moo loolu dafa tuuti sax kooku baaxul santul yàlla. ah man bés mu nekk ma topp Sénégal dam lay mer man Gambien laa de nekkuma Sénégal le Gambien laa de wante dama gis ne nekk di di toxal di soonal doomi aadama ni Sénégal mm-hmm. wante su moytu ma Sall nga keroog wax naa ko su moytu nguuram di ko jekkali de man ñàkk suma ndey nga li ñu ngi ko wax kii Cheikh Baar kii kii Sonko waxoon na ko de Sonko wax na ko lu yaagut mais su moytut nguuram di ko jekkali na continuer ni di jàpp di tëj de dafa xëy benn bés de nu def Gaddafi lool ñooñu ko ñoo def mu ñàkk si bakkanam any anyway loolu laa bëgg a persiter anyway thank you anyway thank you thank you right you take care bye merci beaucoup am na solo suñu mbokku gàmmee boobule euh, macha allah ñu ngi koy jaajëfal bu bu baax a baax Gilbert Euh, franchement nag li mu wax moom li ma ci jot a xam mooy que ni kan mooy conseiller Macky Sall ah. loolu jot naa ko ci déglu daa mel ni te suñu sama sama technicien bu ñaar bi moom mu ko daal di dee ñu ngi koy jaajëfal bu ba tax na ah, franchement ñoom suñu ay mbokk lañ ñu ngi koy bu bu baax a baax mën ngeen di def ni moom woote ci 88 628 73 13 wala ngeen woote ci 08 99 25 24 02 wala ci 77 914 64 Euh, bu ko defee ñu waxtaanee ponk yi nga xamante ni indi nañ leen ko ro mam na maam jaara nee na ko mm. <laughs> ro sama diggante ak dafa aw nii ma aw ne bàyyi mu sedd rek mais ñu koy jaajëfal bu bu bu baax a baax ñu fàttali leen ponk yi ñuy waxtaanee euh, kii di Moustapha Diop waa sûreté urbaine dat nañu koy convoqué ni ki suba nag euh, dina daal di dem uy ci mu mel ne am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. salaamaaleykum. salaamaaleykum. voilà mu mel ni euh, mbokk mi daal dinay dem ni ki suba la ñu ko daal di convoqué waa sûreté urbaine ñoo daal di def lu nu mel moom leen nag Moustapha Diop suñu sukkandikoo ci suñu naataango yi euh, Seneweb yi ñu ngi daal di xam ne ni daal lu waral convocation boobu du leen lu dul lu ñeel dossier euh, Pam Ndiaye mi nga xamante ni jamono jooju toll nii daat nañu koy nëbb jant bi ginnaaw bi nga xamante ni yëkkati na ay kaddu jagleel ko ñenn ci ñi nga xamante ni ñooy magistrat yi loolee jural ko moom Pam Ndiaye jamono ji caabi daal du koy féete ginnaaw ca naka noonee nag ñu ne directeur Walfadjri Paris bile di Moustapha Diop euh, euh, dossier Pape Ndiaye moo tax ñu convoqué ko ni ki suba ñu ne nag euh, dina janoog ak ñi nga xamante ni ñooy enquêteurs yi waaye su noppee moom mi leen nag ñii di enquêteurs yi dinañ jël kàddoom yooyu jag daal di koy rek jagleel ki nga xamante ni mooy Mamadou sekk moom juge bi bu boobaa nag. moom Mamadou Seck euh, mooy décidé lan moo nar a nekk euh, sooru kii di euh, Moustapha Diop beneenu mbir muy Babacar Kewelo mi nga xamante ni nag ba 11h jotee la jàkkaarloog enquêteurs yi ci lu ñeel plainte bi nga xamante ni dal la ci ndoddam ci ku ñu naana Nappel Frédéric Nappel nekk ex policier moo ko porté woon plainte di ko topp lu jëm ci wàllu outrage moom mi leen nag di Babacar Touré xam naa fii ay ay ay waxtu yu néew dina leen daal di rek baaxee yan yan yan ban situation. prison la nekkee lan la daal di jële euh, fi nga xamante nii rek foofu lañu ko convoqué woon mu mel ne am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko asalaamaaleykum. asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi nuyu naa la. maa ngi lay fay madame. Euh, tur bi ak man Patrice laa tudd. maa ngi woote depuis Libreville. depuis. maa ngi woote depuis Libreville. Brésil d'accord Papis euh... d'accord Libreville d'accord ban jàngat nga am ci ponk yi nga xamante ni indi nañ leen ko Patrice. ah madame man de euh, Sénégal daf ma jaaxal léegi. Mm -hmm. dañoo bëre ay naafeq. Mm mais madame. Mm -hmm. taxawoon fii ci affaire Ami Ndiaye ñibbi. Mm-hmm. ñi ko doon kaas ñi ne jigéen na kenn waru ko xoxotal ani ñu tey dégguma kenn mu siy wax mm-hmm. pourtant journaliste bu doon def liggéeyam moom lañu jàpp tey yóbbu ko kaso si li kenn xamut gis nga nguur gi euh, day métti rek waaye si ñoom lay gën a métti de. Mm-hmm. si ñoom lay gën a métti parce que nguur bi ñii au lieu ñuy liggéey pour xool naka lañuy ñuy euh, dimbalee askan wi mais ñoom si ay calcul la nekk ay calcul ay technique yu dul jeex et pourtant man man mi miy wax nii ak yow. Mm-hmm. bëri nañu fii te bëri na ay morom dañuy jàng am suñu doctorat. Mm-hmm. amul emploi Sénégal madame mhm. on est obligé ñuy dem ci dëkk jàmbur di liggéey pour ñoom ñoom loolu yëpp sóoraalewuñu ko lu dul calcul électoral nekkuñu ci lenn mais bu ñu la falee da liggéey sa askan mhm. mais tey Macky Sall lu mu ci lu mu nekk mooy lenn rekk calcul électoral ku wax mu jàpp mu tëj mais si moom lay gën a métti ñi dem ba ci kanam man de ñaanaluma ko dara maa ngi koy bàyyi ak yàlla te yéen ñi journaliste yi maa ngi leen di encourager bu baax mhm. ngeen am taxawaay euh, bi nga xam ne naka laa koy waxee pour askan bi la inchallah merci madame portez-vous bien jaajëf Patrice ñu ngi lay jaajëfal bu bu baax a baax wax lu am solo Euh, ci coowal euh, euh, ki nga xamante ni rek mooy coow Mandela la waaru ci Sénégal ndax defe naa ni coowal aji saax gis nga ay féministe yu yu yu génn fu nekk féministe dafa génne di àddu ci coow li pourtant coow jigéen la jigéen la comme comme aji saax nekk jigéen bi nga xamante ni deful lu dul bokk ci benn groupe bi nga xamante ni peut-être amaana voilà te jàpp naa ne bokk ci groupe taxul la xew ca groupe ba sa loxo ne ca en tout cas ngi ci loxo yoon waaye nag defe naa ne jigéen bu demee ba wanu lor war nga ko même boo koy fekkee da nga koy traduire ci wàllum yoon sax am na leneen beneen beneen yoon boo war a mën a jaar ba yàlla muccal ko su ko defee ngay doogay def li ngay def waaye nag fi mooy Sénégal kumba am ndey ak kumba amul ndey ji euh, jamono ji dafa def dafa ne dana dafa ne fàng kenn du ko dootu ko laam-laamee deux poids deux mesures yi nga xamante ni kenn xamul kañ lay jeex ñu ngi ñaan yàlla yàlla jeexalu nu mel te coroo di ko ñaanal euh, natt bi nga xamante ni dal ci dal na ci kawam yàlla oyofal ko ko ba du ci yëg lenn voilà mën ngeen woote ci 88 628 73 13 wala ci 08 99 25 24 02 wala ci 77 914 64 93. bu ko defee ñu waxtaanee ponk yi nga xamante ni indi nañ leen ko Moustapha Diop niki suba dina daal di uyu ji ca sûreté urbaine ci lu ñeel dossier Pape Ndiaye mi nga xamante ni dafa yëkkati woon ay kàddu jagleel ko ñenn ci magistrat yi ñu ne nag kii di. Euh, Moustapha Diop moom directeur bu Walfadjri loolu moo tax ñu convoqué ko niki suba nag lay dem uyu ji euh, Babacar Touré bu Kewelo moom journaliste d'investigation bi bu 11h jotee la jàkkaarloog enquêteurs yi lam fa jële nag wala ca situation bi nga xamante ni moom la nekk jamono juñ toll nii daan ko toppani bu ko defee euh, fii ak ay waxtu yu néew ñu daat leen koy rek euh, dëgtal beneen mbir ginnaaw Aminata Touré ki ñu naan Mariétou Dieng daal nay génn ca coalition Benno Bokk Yaakaar moom député la ci assemblée nationale nag daal nay génn ci groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar jamono ji nag moom lay di Mariétou Dieng ñu ngi ñuy daal di xamle nii rek euh, non inscrit la maanaam euh, jamono juñ toll nii nag euh, génn na carrément fi nga xamante ni mooy groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ginnaaw leader bi lay di Idrissa Seck ba mu daal di démissionné ak ay ñooñam ku ci mel ne Yankoba Diatara ak Ali Sali Diop moom Marietou Dieng moo ci daal di topp ab laaj daal di samp ginnaaw Aminata Touré mi nga xamante ni ba mu génnee nekk non inscrite dañ ko daal di dàq ndax marietu Dieng mii ndax moom it dinañ ko dàq wala duñu ko dàq tout cas nu mu ci mënti doon suñuy gët rek xool fan la wànnit di mujje ak ay ëgët